sëriñ bi xaada lahu llahu maxtaara lahu nee na mooy yàlla subhanahu wa na te terees na ko ci wépp weer waaye day gën a teddliku ci ramadaan nee nañu yawmal xiyaam dana am ab jaam boo xam ni malaaka yi alayhimu salaam dañu koy dóor ba mu daw laxasu ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama su ko defee yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama laaj lan moo doon bakkaaram ñu ni ko daa mooy yàlla subhanahu wa taala ci weeru koor yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbi bëgg koo ramu ñu ni ko bàyyi koog ramadaan mooy xulóog moom su ko defee yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbi ni man set naa ci koo xam ni ramadaan mooy xulóog moom nee nañu am na ab yéefar bu mas gis doomam muy lekk ci bëccëgu ramadaan ci kanamu julli ñi mu dóor ko ni ko doo sàmm xormay julli ñi ci ramadaan bi mu faatoo ci ay bis am ku ko gént mu nekk jana mu laaj ko ni ko xanaa nekkoo woon ab yéefar mu ni ko axa waaye bi may bëgg a faatu la ma teral ci lislaam ngir li ma ramadaan yonente bi sallallahu taala yi bi alihi wa wasalama wa sallama nee na nañu nee na dañuy tijji bunti asamaan ak bunti àjjana ci guddi gi njëkk ci ramadaan ba weeru jeex képp ku sujjóot ci ramadaan benn sujjóot sunu borom subhanahu wa taala bindal ko junni jiw ak juróom ñaari téeméer tabaxal ko ci ajjana néeg boo xam ni wurus lay doon ak juróom ñaar fukki junniy bunt yoo xam ni wurus lay doon képp ku woor bis bi njëkk ci ramadaan sunu boroom jéggal ko bakkaaram yépp bis boo woor ci ramadaan sunu boroom subhanahu tabaxal la kër gu rëy ci àjjana goo xam ni dana am junni bunt lu mat juróom ñaar fukki junniy malaaka dañu lay jéggalul ba jant bi so bépp sujjóot boo sujjóot moo xam guddi la wala bëccëg da nga ca am garab gu rëy ci ajjana garab goo xam ni ku waroon di dox ca ker ga téeméeri at du ko jeexal ba tey yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi ab jullit bu yeewoo ci ramadaan di wëlbatiku ci lal bi mu tëdd tudd yàlla subhanahu wa taala malaaka mi da ko naan yal yàlla yërëm bu jugee lal bi da koy ñaanal ay lal yu kawe ca ajjana bu solee ay yére da koy ñaanal ay yérey ajjana bu solee ay dàll da koy ñaanal sunu boroom subhanahu wa taala dëgëral ay tànkam ca siraat bu yootoo ndab da koy ñaanal sunu boroom subhanahu wa taala jox ko ca koppi ajjana bu dee jàpp ndox mi da koy ñaanal sunu boroom subhanahu wa taala seetal ko ci ay bàkkaar bu taxawee di julli néeg bi da koy ñaanal sunu boroom subhanahu wa taala leeral bàmmeelam yaatal ko bu boobaa nag sunu borom subhanahu wa da koy xool ni ko yaay ñaan maay wuyu ba tey yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa nee na nelawi ku woor ak jaamu yàlla la subhanahu wa ay nooyeem sàbbaal la lu mu ñaan am ko bàkkaaram yépp dañu koy jéggal ay jëfam dañu koy ful bokk na ci li ñuy sopp lool ci ramadaan naafile yi la gën a rafet mooy fukki rakka ak ñaar daal di wittar képp ku mokkal alxuraan te amul ngant na jàng la mu man ci rakka yooyu ku matal lim bii ba noppi mën naa dolli lu ko neex ci naafile yi ci biir guddi gi wala bëccëg ndax naafile ci weer koor bari na lool ay ngëneel naka noonu képp ku woor ci ramadaan war nay sàmmonteeg julli mbooloo tey takkoo jataay ci kari tey topp ay waajuram di leen liggéeyal bu fekkee ñu ngi dund bu ñu faatoo itam mu leen di ñaanal nee nañu képp ku teewe jataayu zikkar ci ramadaan sunu borom subhanahu wa dana ko bindal ci bépp jéego jaamuk am at te bu ëllëgee ca kerook aras lay toog ànd ak yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi képp kuy takkoo julli mbooloo ci ramadaan sunu boroom subhanahu wa taala dana ko bindal ci bépp rakka ab dëkk ca ajjana boo xam ni leer lay doon ku ci topp ay wayjuram ci limu man sunu borom subhanahu wa taala dana ko yërëm te mel na ni ku yonante bi sallallahu taala alayhi wa yoral boppam gàddul ko boppam bokk na ci li war jigéen ci weeru koor muy sàkku ngërëmul borom këram jigéen ju koy def dana am tuyaabay maryama ak asiya alayhima ridwanullahi taala naka noonu di farlu ci faj xaajoy nit ñi ku ci dox ngir xaajoy jullit faju sunu borom subhanahu wa taala dana ko bindal ci bépp jéego juróom ñaar fukki yiw faral ko juróom ñaar fukki ñaawteef yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa na am na mbindeef yoo xam ni sunu borom subhanahu wa taala da leen a bind ngir xaajo nit ñi nit ku am xaajo ci ñoom lay daal di ñëw ñooñee sunu borom du leen bugal ba tey nee nañu képp gépp julli farata goo julli ci ramadaan mi ngi mel ni goreelu jaam mi ngi mel ni juróom-ñaar fukki julli ci lu ramadaan weer la woo xam ni wërsëgi julli ñi da ciy yokkoo képp ku jox ab jullit lu mu doge ci ramadaan mel na ni goreel na ab jaam tàmbulib ramadaan yërmande la digg bi ak njëggal mujj gi ak goreel ci sawara képp ku jox ab jullit lu mu doge ci ramadaan muy lu lew lu mu faggu malaaka yépp danañu julli ci moom ñaanal ko ba ci sayyiduna jibril alayhi salaam te dana ko jox loxo képp ku woor war nay téye bu baax cem yépp ci bànneex yi ak mooy yàlla subhaanahu wa li tàmbulee xaruk fajar ba jant bi so bu lu mel ni bànneex yi moom bu jant bi soxee dana dagan waaye mooy yàlla subhanahu wa taala daganul ci ramadaan daganul ci waneen weer bu ramadaan masaana dugg lii la yonante bi sallallahu taala allahumma sallim li ramadana wa sallimhu minni wa sallim minhu waj'alhu mutaqabbalan ba tey yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na ramadaan mooy xolub at mi bu sellee at mi lépp sell képp ku jàng sóoratul fatihi ci guddi gi njëkk ci ramadaan sunu borom subhanahu wa taala ko wattu ci at mépp su ko defee del gaaw a dog bu jant bi soxee tey yéex xëdd bu guddi gi des tuuti bul lekk lu bari bul naan itam lu bari beel téye saw làmmiñ ci waxi caaxaan tey sàmm say bët boo dee dog nga wax lii allahuma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu zahaba rama'u wabtallatil uruq wa sabbatal ajru insha allahu taala boo ko mënee nga jiital tàndarma am na barke lool boo ko amul nga naan ndox ku doge tàndarma buy julli danañ ko dolli ñeenti téeméeri julli ci ak julleem wala boo ko amul nga doge lu saf suukar ba tey dee leen farlu ci sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa tey moytu bi daa yi nga xam ne seytaane képp lay jóge yi nga xam ni ci seytaane képp lay jóge yàlla na nu yàlla jubal jubal leen teg nu ci siraatal mustaqim ba nu texe texe goo xam ni dootuñu texeeti mukk faw amin ya rabbal alamin lool mi ngi ci diwaanu jasaau sakko xatu téeméer ak ñaar fukk benn muy cent vingt et un wallahu alam sëriñ bi xaadala wallahu maxtaar loo bi mu sante yàlla subhanahu taala julli